24 heures yéene kaay nee na nag am na ab waxtaan wu am solo wu nga xamante nag dox na ci digganteem ak njiitu réew russe di Vladimir Poutine am na ay mbir yu bëri waxtaan nan ka ci bokk na ci gën a dëgëral seeni xaritoo ba noppi fexe ba jàmm ak dal am ci Sahel bi aar tamit espace CEDEAO te jamono jooj nag ñuy waaja a dalloo quinzième législature bi le enquête yéene kaay ne ci diggante ambition personnelle ak projet de réforme lépp ngi ci biir ci biir assemblée boobu nag opposition bi am nañ fa seen pàcc ñoom nag ñu ngi def seen kéem kattan ba gën a dëgëral seen taxawaay njiitum ndaw réew moomule waaye nag laaj bi samp mooy kan moo nar a jiite assemblée nationale am na ay tur yu bëri yi nga xamante nag ñi ngi koy dégg waaye nag dara leeragul ca jamono jooju nag taxawu Sénégal yëngu na Abba Mbaye amul lu mu yàkkul Barthélémy Dias ak Khalifa Ababacar Sall ba noppi nag wan leen ginnaaw journal bii di Les Échos yéen a kaay Abba Mbaye di ci wax yi dëggam nee na nag tànneef ki nga xamante ni Khalifa Ababacar Sall tànn na ko ak Barthélémy jaas loolee nag metti na loolu tànneef googu le nag jaarul yoon Anta Babacar dina dem ci assemblée nationale Fall ca péncum ndaw réew ma dara leeragu ci moom Abba Mbaye nee na nag bañ a dégg turu Ousmane Sonko loolu du doctrine politique moom it nee na amul dara lu nga xamante ni war na ko defati ca peggu Khalifa Ababacar Sall wala Barthélemy Diaz l'observateur ca jamono jooj nag mu dellusiwaat ak ñun ca woolu ginoo woolu yenn nit ñi ca cybercriminalité wala ca division des investigations criminelles bokk na ci nag Adama Gaye di journaliste ak Moustapha Diakhaté nekkoon fi ancien parlementaire ñoom nag liñ leen di toppee bokk na ci jox xibaar yi wérul wala sax di saaga Adama Gaye nag ak Moustapha Diakhaté ñoom seen week-end bi lee ñu ngi koy passé ci loxo takk der yi Sud Quotidien moom dellusiwaat ak ñun ci fitna yi xewoon démb te Ziguinchor ca diggante étudiants yi takk der yi ñoom ndongo yi nag amal nañ ak grève nga xamante nag amul àpp démb nag tàngoon na loolu ca université Assane Seck bu Ziguinchor ñetti oto daal dinañ koy lakk bokk na ci oto recteur université ba jàmmaarloo nag yi doxoon ci diggante takk der yi ak étudiants ak alimentaire enqueteur yi nga xamante nag ñoo ci nekkoon ñoom nag ñi ngi ci ñàkkaaraange le quotidien yéen kaay din ko xamal nee na nag ñoom seen mission bu mujj ba ba léegi kenn fayu leen dërëm seen koppor jotuñu ci dara ñu waxee tamit euh, ci taux de prévalence sida bi ca bassin arachidier bi lépp ñaari junni ak ñeenti téeméeri doomu aadama am na nañu feebar bile di sida tàggat yaram ak réew mi sport afro basket 2025 Sénégal nag làpp na làpp yu métti équipe bii di Rwanda am nañ juróom-ñett fukki poñ ak benn waa Rwanda am juróom fukki poñ ak juróom-ñett sundaal nag del